jëm ci bis bu rëy boo xamante ni jàmbaar production ñoo ko organisé fële ca arène nationale mbokk yi nag drapeau grand combat bi ñu tuddee ko suñu papa père Ali Sow mu nekk koo xamante ni vraiment liggéey na ci làmb lu tax tey ñu delloo ko njukkal jàmbaar delloo ko njukkal fas yéene ko honoré ci bis bi nga xamante ni tey moom la ñu dëgg la 30 juillet fële ca arène suñu papa père Ali Sow nag mooy papa ci papa Sow yéen ñëpp xam ngeen ko. papa ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar di la delloo kër. ñu lay fay fii. di leen delloo yàlla bu baax di xale yi def nag waa jàmbaar. lu rëy lu sori man. parce que sama judd ci làmb bi yàgg ko suivre. man ma commencé dem làmb cinquante trois la mille neuf cinquante trois mm-hmm. mm-hmm. loolu nag yàlla dimbale na ba nga xamante ne yooyu fa mm-hmm. nekk loo xam ne c'est tout na ma xamante ne dafa enregistré loolu nag nit yàlla daf koy bindee noonu di fàttali ko yu bare bare Sénégal waaye mu doon loo xamante ne père Boye ci boppam laay njëkkee parce que lépp moom la bu toog seet nan lay jàppale xale yi xelam may ko ñu xëccee ko waaye ne ko ngir mën a dimbali waa parcelle ak yeneen mbir yi c'est la seule façon boo xamante ne moom la mën a def pour aider xale yi évidemment mbuuru parce que yàlla dimbali ko ñoom ñoom ñu suudoo bu nekk benn parce que loo mën a dégg passé moom tout équilibre bi nekk mooy benn équilibre bi nekk parce que ñoom ñooy équilibre bi mais mbër yi ñooy équilibre ñoom nag ñoo accepté bokk ndey ak baay diggante bu mu ëpp forom benn équipe di entraîner doo ensemble loolu amul fon mhm. fii rek la am donc loolu moom la ci jublu ci lu mu ci daf ci wut li nekk dafay seet façon bu muy dimbalee xale yi pour mu gën a yaatu moom muy def lu mu mën ci adduna bi ak mbooloo mi ak waa passé mais lii daf ko def pour mën a gën a dimbali jeunesse bi jeunes yi passé bi suñuy bëre dañuy bëre yeneen jeunes mm-hmm. donc dafay xaw a law Mm-hmm. loolu mooy objectif jàmbaar. Mm-hmm. mais moom wuti ci mm-hmm. benn franc sax bu mu jëndee crédit foofu ñëpp xam nañu. dimbale xale yi donc moo ko tax a jëm. macha allah loolu c'est le même cas que Mansour. Mansour li muy doon doon xale xale bu tuuti rek. koy ñaanal yàlla yàlla mu cat sàmmal ko boppam. Euh, moom il veut être le vrai fils de son te papam neexula doon mbaa nga roy ko ci ay mm-hmm. qualité mm-hmm. il faut nga góorgóorlu pour nga am qualité yooyu mm-hmm. parce que moom su ma delloo tuuti ginnaaw ay camarades am yi nga xamante ne dama bokk di togg ñoom fi ñu ñëw yenn si ay di ko seet ñuy waxtaan ci mbedd mi ñu def ci benn témoignage bu ma xaw a yéem ñu xamal ma ne ma ñoom bi ñuy liggéey sans prix baax moom moo nekkoon seen chef de groupe Mhm. mais fin du ku nekk xam na salaire nu mu mel ak bulletin. Mhm. ku ci nekk sa bulletin ngay tal. Mhm. mais moom suñu fekkoon ba pare day retourné jël bulletin bi ko partagé employé nag parce que lu ñu yore xeet na ko te mënoo ci dara. da doon jël salaire am di ko partagé ak dafa mel ni <clears throat> négul ba tabaski jot mu soog a saraxe ay. li muy def nii daf cee yàgg bu luy fekk ko ci. Mm-hmm. il est naturellement comme ça. Mm-hmm. loolu donc nag euh, man su su jaaree yoon woowu. Mm-hmm. soo ko xoolee fii ci parcelle. day jël alalam jënd ci nangami jakarta. ne ñu koy jox xamul leen xamul fu ñu bokk du xamu ak ñi muy jox frigo ak ñi nga xamante ne daleen leen di xool ci koñ bu leen. ñu am ci li ñuy yëngu. dinañ jàll ay permis de conduire ay yëpp di ko taxawoo jeunesse bi mosu fee réclamer dara te nit daf fi am ay kër donc dafa wane ne moom ko bëgg a la moo tax moo fay jënd kër ay edam mu koy lawal xoolu ci kii xoolu ci kële xoolu ci kële daf koy joxe jàll benn yoonam ak yeneen yoo mën a mhm. yu bëri dañ ko fi def mm-hmm. ah, keroog bi fi Mamadou euh, premier ministre fi ñëwee dañu daan résultat li ko wax fii kanam ñëpp daf ne ko man mm-hmm. awma lu ma lay réclamer awma lu may wut ci mm-hmm. man dama bëgg nga fekk si ma ci ni may jàppalee jeunes yi man ci loolu laa bëgg nga jàppale ma nga nan lañ ko yaatalee bu jeune bu nekk mën ko gis sa bopp ah, léegi nag ñooñu duñu mën a def dara lu muy ñaanal drapeau euh, bi mu ma tudde yéene la euh, dafa rëy ba nga xamante ne mm-hmm. bett ma aussi bett boo xamante ne parce que drapeau dafa am solo ci làmb drapeau mm-hmm. dafa am histoire mm-hmm. xam naa ne ci kanam tuuti dinañ ci dugg dugg bu gàtt rek parce que dafa am lu ngeen war a xam ci drapeau waaw loo xamante ne day ay maanaam bu ci nekk dafa am ay empreinte ñu mm-hmm. fi booy ay jàng mm-hmm. ba am yoo xamante ne sax su ma ko fi waxee dafay euh, nekk loo xam ne man boobu tax man mënu ma koo nettali mais dama ko gëstu mm-hmm. histoire lamb vraiment li ci gën a marquant mu ngi commencé ci Falang ak Souley Ndoye Falang Souley bu euh, ma bi ngay dégg bu jàngee moom ba fi ñëwee nekk booy daan ñëpp dëkku fi nag waa Ndakaar yi jël ko teg ko ci kaw mburu Ndakaar yëpp. ñu gënal leen seen doom ci gàttal dafa dem a dem a dem a dem ba sës xamatul fu ñu jëm boobu su lay looy jógee mbuur. Mm-hmm. ñëw ñu war ko boolee moom te su lay looy commandant ci boppam. mu mm-hmm. ko takkaloon croix rouge ci loxo parce que képp ku mos a dóor da ngay xemmali. xamali mm-hmm. xom rek mais da ngay moom moom ku mos a dóor nga taxaw. ñu takkal ko benn croix impérativement il a fallu quand même que mu bëre ak Souleye Ndoye mm-hmm. ça c' était 1943 su ma ko nettalee dañ ma ko nettali mm-hmm. moom c' est historique di bëre fii ci garage Petersen fi oto yi nekk mm-hmm. foofu la arène bi nekkoon foofu la Souleye Ndoye bëre ak Falang mais Falang dañu wax ne waa làmb bi ak waa Ndakaaru dañu wax suba yooyu ñaari salaire lañ lay fay. Hmm. benn bi mooy bi ngay accepté bu rek moom d'accord beneen la. waaw ñu fekk ko ñaari sooy. te moom bu la woon quoi xam nga drapeau bi nag di law law law law boobu nag 1953 bi man ci 53 nag laa commencé suivre. 53 ban combat ci ci Iran 53 ba ba ba tey jii. bon euh, xam nga drapeau bi dafa am foo xamante ne comme ni comme ni kii bi mel ni euh, roi des arènes bi. Mhm. dafa am fu mu yàgg am foo xam ne passage rek la fay def mais ñi ko fi génn a téye ko. Cheikh Mbabala moom yor na ko cinq ans de cinquante trois à hmm. hmm. boobu lébu yi suñu maaree. parce hmm. moom champion yi yi dëkkuñu Dakar. champion yëpp ay gan lañu dëkkuñu biir Dakar fii parce que dëkku fi Cheikh Mbabala dëkku fi Fala dëkku fi te ñoo ñoo fi mos te kenn dëkku fi mais suñu demoon nag ba maar boobu temps lébu yi lañu. jamono yooyu Cheikh Mbab kër ñoom kii la doon ngeen bu faas. Hmm. kenn day ngeen moom mii dégg loolu tey wala am na ñu ci fàttali. Hmm. alors boobu marqué na ma parce que dañoo seeti dañoo seet kan moo war a mën a daan Cheikh fii guddi loolu parce que def na cinq ans. Hmm. ñu musul laal suuf. te day bëri samedi bëri dimanche bëri tous les jours ko jéego Cheikh Mbab mu nga gis. Mm-hmm. te tolluwuloo ne gars yi am beneen façon bu rek lu muy song mm-hmm. toute sa euh, bi muy jël drapeau bi boobu tuuti naa trop mais keroog sama kanam la bi mu koy jël ci Abdou Ndiamb Gueye bu jandeer mm-hmm. waaw yaa ngi toog euh, ci la lébuy préparé treize ndiir pour mu ñëw daan Cheikh Mbaba kër googu kii juddoo papa mii ci biir kër googu la arène bi nekkoon mooy arène arène ma duxule biir kër gi papa Sow juddoo mooy arène ma duxule te ko doon tëgg ay lamb ci biir kër googu ci biir kër googu parce que bis ji réyoon na réyaay boo xamante ne hmm. man su ma doon dugg nii dañuy gàddu euh, ndënd géwél pour ñu mën leen ñu dugalaale. Mm-hmm. noonu lañ la daan dugalee ci jamono jooju. waaye man maa doon dem seen kër ñoom wees ak ñoom. c'est ça bas mm-hmm. dañu gàddu gi mm-hmm. mën a dugg. macha allah allah papa am na solo lool ci histoire yi nga xamante ni tey nettal nañu ko ci làmb waaye tey bu jàmbaar demee ba jël drapeau tuddee la loo yaakaaroon na ci làmb de. Euh, bett na ma de. Hmm. wax dëgg yàlla nag parce que xalaatuma woon euh, xalaatuma dara bu dee du caaxaan. waaw ñun dama ko tuddee c'est le chemin. Hmm. Euh, loolu nag euh, ci dara lu muy père ba. Hmm. man damay yëg ne daf ma fonk fonk boo xamante ne daf ma cër boo xamante ne. mënuma comprendre. amul fu muy dem ci mbooloo te du ma man daal feebar moom mënuma wax ay mbiram hmm. c'est grâce à lui lépp moom la man suur ñëw tegu gis ni papa mel ci man hmm. moomu mel ko ci nu ma raw hmm. daf a mu am benn affaire dama ne ko mu ne ma raccour daal yow laa ko bëgg a tudde ma ne ko lan mu ne ma nag teguma rek waaye du mën a dara dañ hmm. la tuddee drapeau bi rek waajal ko yow ci sa wàllu bopp kese hmm. tout ce qui est affaire man maa ko euh, loolu loolu nag xam nga doo ko mën a commenté hmm. bànneex bi nga ci yëg ak ni nga koy gisee ak ni mu rëy ci yow ah, doo mën a wax lu muy un grand merci euh, sagal na ma bëggal na ma delloo na ma njukkoon ah, muy def dara lu muy ñaanal ko yàlla suñu borom bi rek. amiin yàlla yàlla nangu ñaan ni waaye père. Hmm. mbër yi en général bu ñu amoon combat wala yu mel noonu. Hmm. Euh, kuñ ci wax rek su paree day day woote xanaa di nga woo képp koo xamante ni hmm. ay supporter la ci Papa Sow ci mu nekk sa soppee sa yi sa euh, naa. ñi nga xamante ne ñoo fi des ci mbër yi te ma bokk daje moom tuuti jamono. Mm. parce que man pratiquement ñun xam nga biraay ñoom ak ñooñu suñu mm. suivant la mm. man mii sax xanaa si wàllum mbéy parce que man maa man ñoom mbéy gi. ñoom ñoom ñëpp ku ci nekk woo naa mm-hmm. waxal la ko euh, su ma xamee su ma limee. Mm-hmm. nii continuer continuer dinaa am. Mm-hmm. damay am. problème. Mm-hmm. mais en tout képp koo xamante ne. Mm-hmm. Euh, sama xarit nga démb ak barke démb sama xaritu faas yi. Mm-hmm. nga xamante ne ci écrit boobu laa nekk ba nii. Euh, supporteru papa yi parce que képp koo sama am bu jàngee man la loo ci bés. am euh, nga xamante ne mooy sa papa. ak li nga def ci làmb yooyu boo gisee lu mel nii ban ban ngir jëm ko ci am nan lay def ci yow. waaw jërëjëf ji bi. Hmm. di nuyu assistance bi tamit. Hmm. Hmm. di nuyu mbokk internet yëpp. ak ñi si mën fii ci àdduna. léegi daal di ko ñaan lépp jàmm. yan ñaanal ci asura bi. daal nañ ko yàlla mën a teew koy ati ati ati ati incha allah. waaw lii mbégte la rek ndax man boobu. bu ñu duggee ci groupe jàmbaar bi annoncé drapeau bi maa ngi doon tooñ sax di leen balak quoi. Mm-hmm. di leen xaw a sànni ay xeer. man mm-hmm. ay ay fo la sax quoi. bu mm-hmm. ñu tuddee baalu drapeau bi. mais bu ñu dawalee ay un mois après làmb ji jege si la onze ba di jege si ma xam ne kon lii ñu fooguñ si dëgg la nekk quoi. ndax boobu nag ñu ngi ut euh, maa ngi faat man ay yeneen parrain yoo xamante ni tey jii. ci beneen domaine la quoi. mais gars yi nañ noonu noonu sa waay paa bi dañ tuddee drapeau bi may ba dañ tuddee drapeau bi. ba ci suuf si yenn drapeau bi drapeau Moussa Dioum drapeau père góor a yooyu yëpp quoi yooyu mhm. daal ñu moom trophée nekk trophée loo xamante ne rek ay trophée de reconnaissance ay nekk mhm. utuñu si xaalis utuñu si dara mhm. xool képp koo xamante nii mës ci làmb mës ngaa nit la boo xamante ne nii suñu nitu dëggantaan la ñu jëlee la affaire quoi te ko yaakaar naa ne sax loolu moo ëpp moo ëpp yëg-yëg nga ci des di xaar ci moom dara ñaari tout temps rek day am ay réeru diggante promoteur ba ak euh, parrain ak parrain wala mbëri si bëri ak parrain yi. Hmm. mais lii lu naturel fekk jàng yow doog noonu tuddee ko làmb moom dara. Hmm. ne ko nag li xew ci jur bi yëpp ko yëre booy sol sax maa la koy jox. Hmm. xam nga ko fekkee ne ko joxati ko damay jënd basin pour la onze bi mu ne ma non non may bi jëloon na ma basin pour li ma war a sol dimanche. am naa yëre ba pare quoi maa su jox na may mu jëlal ma yëre yi moo la sol a pare waaw alhamdulilah kon sama sëñ bi jëlal ko téye Hmm. waaw di jaajëfal rek famille Ba yëpp nag. Hmm. famille Ba yëpp mais bu ñuy jaajëfal famille Ba yëpp dañ koy euh, teg ci loxo Adja Aïda Diallo. Hmm. ndax it euh, yombul de ñun fii kër gi yaa ngi fi ñëw de. bu deux heures du matin dañuy ci kaw. kilifa bu doy moom bu deux heures matin. ak waa bi dérangement beeg nangam nangam. c' est parce que euh, maire moo yaatal. moo jël ñëpp def leen ñëpp dañ leen doomu. moom boo koy xam ne la lay sama kër jàmm rek laa fi ñaan bu ñu leer rek ñoom sama ay doom lañu indi fi jàmm ànd si jàmm léegi des nag yi ci biir moom ñëpp dañuy ñaan yàlla rek li fi ñëpp yaakaar seen xel di fi ñëwoon lu fi ut yëpp yàlla bu yaakaar si mm-hmm. yaakaar. yaakaar dafa fort. Mm-hmm. te yëpp mm-hmm. alal dafa sax ci xool ba telle sorte nit bu koy génnee. Euh, am na bu ñëwee day nekk si ñoom. Mm-hmm. am na bu ñu ko waree génne te génnewuñ ko day nekk si ñoom. Mm-hmm. xam nga dégg nga wala déet. Mm-hmm. am na bu ñu waree génne dara seen seen ñax. day nekk si ñoom. am na bu ñu ko waree génne te génnewuñ ko day nekk si ñoom. loolu nag loolu moo dal loolu moo dal maam père ba moo dal Mansour moo dal fan bi yëpp quoi. ñoom bu doon jël li ñu am mu néew mu bari. ñu bokkoon lépp. ñaan yàlla yàlla yàlla doon doon sutura. ñu jox ñëpp rendez-vous dimanche incha allah rabi arène nationale. ñëpp ñëw si jàmm. ñëpp ñëw si jàmm. di ko fa ñëw tamit yàlla lan fa ut si yàlla na yàlla sotti mooy am ci mbégte. Hmm. ñu ngi jaajëfal ñëpp hmm. waaw. jërëjëf.